Je le disais à l'entame de mes propos, nous avons en face de nous de grands bandits. Ah oui, le mot n'est pas trop fort. Nous avons en face de nous de grands bandits et aujourd'hui, ils sont dans les dispositions de tout faire pour faire passer leur liste. Je veux nommer la coalition Benno Bok Yakar. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons saisi les représentations diplomatiques basées au Sénégal, et principalement l'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade d'Allemagne, Mm, la délégation de l'Union européenne ainsi que la délégation ainsi que l'USAID. Pourquoi ces deux organisations Parce que tout simplement, ces organisations injectent beaucoup d'argent pour normaliser et faire en sorte que le processus électoral au Sénégal soit transparent. Mais hélas, on a affaire à de grands bandits. C'est ce qui explique aujourd'hui cette démarche antidémocratique, cette démarche qu'une partie de l'administration est en train de faire pour éjecter, exclure des Sénégalais qui n'ont de tort que d'avoir pris leur courage à deux mains et se dire nous allons entrer dans ce landerneau politique. On a été averti. On savait que ce sera très difficile. Mais rassurez-vous, nous avons le courage qu'il faut pour avancer. Vous venez de le dire, Samba Diouf, la politique, ce n'est pas un métier. Ça doit être un sacerdoce. Mais malheureusement, nous avons en face de nous un pouvoir composé de personnes assoiffées. Et aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent, c'est de se maintenir au sommet de l'État. Je crois que c'est peine perdue. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a constaté qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans les listes de Benno Bokyakar. C'est le lieu d'interpeller les acteurs de la classe politique. Pas de compromission, pas de deal, pas de combine. Nous, au niveau de Gumsabop, et de Andou Naoulé, nous sommes très sereins. Pourquoi Parce que nous avons le droit avec nous. C'est pourquoi nous demandons l'application de la loi dans toute sa plénitude. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel est face à l'histoire. Comme vous le savez, depuis le samedi à minuit, les 72 heures qui leur avaient été allouées se sont épuisées. Voilà 48 heures que nous attendons la décision ou les décisions du Conseil constitutionnel. Mais hélas, on va devoir encore prendre notre mal en patience. Je dis et je répète, et la coalition Benno Bok Yakar sont aujourd'hui dans une position de négociation. Ils sont en train d'aller voir des gens dans le but de voir comment arriver à une compromission qui permettrait à leur liste et à d'autres de passer. Rassurez-vous, notre position est très claire. fii combine du fi am fii deal du fi am parce que ñoom politiciens professionnels yi tàmm nañu loolu tey li ñu bëgg mooy sur doo dos des nekk ci ay deal li ñu bëgg mooy sur le dos des nekk ci ay logique yoo xam ne fa mbir yi nekkoon démb ak bërki démb danañ ko fa dellu si loolu du am tey du am ëllëg bu yoboo ñu xam ne one est Nous restons engagés pour défendre la démocratie sénégalaise. Nous sommes partis rencontrer les forces vives de la nation, les activistes, des organisations de la société civile. yemuñu fa rek ci wax ci mbirum parrainage parce que boo ciy wax day mel ni ñun li ñu ñu téye ci parrainage moo tax ñun amuñu problème mu parrainage te dafa jaadu ñu fàttali nit ñi li fi am Serigne Mboup dafa gañe département waxuma la gañe commune daf leen a duma Kaolack gagné département waaw ku gagné département mun naa am problème mu parrainage wax naa ko bërki démb am na fi ay coalition yu ñu jàlle yoo xam ne li ñu am ci ay parrainage amuñu ko woon ci ay voix ci élection locale yi ñu génn xaayaan nag ku dégg séeréer bind lettre bi dañ ko bind sànni ku for yaa ko moom ñun gëm sa on a 222 000 voix. Rien que sur Dakar, rien que Dakar, on a 76 000 voix. Est-ce que ñooñu nous nañu am problème au parrainage Gis nga il faut pas ñu yàpp sénégalais yi il faut pas ñu yàpp sénégalais yi direction générale des élections Macky Sall daf leen fi teg ngir ñuy def li ko neex malheureusement tey yat woowu Macky Sall lu doon dóor nit ñi frit ci ndigg mu saf lool metti lool te yat woowu dal na ci kawam fi mu nekk nii xelam ak xalaatam mooy yat woowu mu doon dóor nit ñi te tey ñu dal ko dóor ko ko yat woowu nu mu nu mu koy roccee ni ñu koy roccee nag nenn la am ay nit ci biir classe politique bi déglu leen bu baax li ma wax am ay nit ci biir classe politique bi ñoo xam ne seen yéene ak seen xalaat du lenn lu mooy tëgg diil combine bëre pour que ñoom ba bennoo seen liste jàll waaye pour ñeneen ñi am problème mu liste it ñoom seen list jàll dama ne bee boo ngeen xam ne du fi amee en tout cas sénégalais yi ñu ngi yëkkati seen bët teg ko ci conseil constitutionnel sénégalais yi ñu ngi leen di bàyyi xel parce que tey ji vous allez faire face à l'histoire conseil constitutionnel boobu nga xam ne amutoon de compétence que son incompétence parce que chaque fois dañ la doon wax on est incompétent pour kon tey jii sénégalais yi ñu ngi leen di bàyyi xel Macky Sall avec son administration avec la direction générale des élections nekk nañu ci logique gu sélection législative parce que dañuy wax élection législative mais ñoom ci sélection législative la ñu nekk sélection boobu nag tey jii dal na ci seen kaw parce que moo tax seeni liste ñu nekk ci logique bu bëgg ko sauver mais liste yooyu dara mënu ko sauver parce que liste yi la loi est très claire bu ñu ñu fi wax waxi jurisprudence parce que dégg naa leen ñuy rocci ay jurisprudence naan ay jurisprudence alelo ay jurisprudence su euh, xawma lan ak lan ak lan ay jurisprudence su fanden fii jurisprudence su dëgg dong moo fi jurisprudence njublang jeex na et la preuve Sénat ñun dañoo bind Sénat ne leen liste Benno Bokk Yaakaar dañu ëppal nombre de parrains bi ñuy déposé parce que dañu dem direction générale des élections ànd ak huissier ñu bañ huissier bi dugg ñu jël bind yóbbu Sénat waa Sénat tontuñu tontu Sénat baa ngi nii mais tontu bu neex liñ ñu wax nee na ñu dem dellu leen ci commission ba commission bi mooy jël décision ñuy rappeler notre grand-père Doudou Ndir qui est euh, euh, Doudou Ndir c'est ça qui qui est d'ailleurs à la retraite depuis très longtemps mais qui se maintient au poste parce que tout simplement Macky Sall le veut di ko fàttali parce que mun naa naax parce que ku retraité la booba ak léegi wax dëgg yàlla di ko dañ koy fàttali rek mag la mënees na koo comprendre fàttali ko 2009 commune bu Ndulo ak commune bu Ndindi waa Sénat ci boppam SEDA ba dañu jëloon plainte def ko ci ñaari communes yooyu mu dem cour d'appel cour d'appel rejeté seen demande ñu dem cour suprême bi ñu demee cour suprême cour suprême ne leen yéen Sénat loi jox na leen bépp prérogative ba yegg ci prérogative de substitution maanaam bu fekkee administration deful lu jaar yoon yéen Sénat da ngeen di jóg dindi fa administration ngir jaarale mbir yi ci yoon kon bu ñu ñëwee tey di ñu wax ne naan nu delluwaat leen ci commission bi c'est fuir leur responsabilité le Sénégal mu ngi leen di déglu Sénégal mu ngi leen di xaar élection yii ñu jëm Macky Sall mun naa defi pexeem ngir rocc ñu ci ñun gëm sa bopp ngir génn ñu ci waa ànd nawle ngir génn ci ku mel ni Fadel ak jàmmi gox yi waaye duñu ñu tere campagne du ñu ñu tere fexe ba opposition bi am majorité bi ñu soxla au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que c'est ça le combat. Le combat, c'est de faire en sorte que Macky Sall perde l'Assemblée nationale. Le combat, c'est une défaite psychologique qu'il faut affliger à Macky Sall et sa coalition Benno Bokk Yaakaar pour que ñu xam ne troisième mandat mënta am ci réew mi parce que li muy layam layam yépp dara waralu ko lu mooy seet ban yoon la mun a jaar pour am troisième mandat waaye loolu nag na ko acteur politique yi xam te bañ ko ko yombalal parce que yombalal ko ko mooy nangu coalition Benno Bokk Yaakaar bokk ci élection yi ñu jëm parce que coalition Benno Bokk Yaakaar warul bokk ci élection yi ñu jëm loolu nag xam ngeen ki ngeen am leel ki ngeen am leel du jënd glace comme du jënd glace ñun nañu toxoñoo kaani rek jàkkaarloo ko moom xaayaan nag ku dégg séeréer je parle à la jeunesse de ce pays, je parle à, aux Sénégalais déterminés, engagés pour que la démocratie soit préservée. maa ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf. ah merci jë jë jërë ngeen jëf kontaan nañu merci jërë ngeen jëf gars yi. merci beaucoup.